audit bobu nak dégg naa ñenn ñi naan commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire mooy ci réew mu am assemblée nationale assemblée nationale boo xam ne mag ma ko yor moom yoonam nekkatul ci dara bu ko magi piisee sax mu daw yoonam newul ci dara lañ ko wax loolu lay def assemblée nationale boo xam ne majorité bi fa nekk c'est des blanchisseurs de de corruption et d'escroquerie ndax yéen ñëpp dégg ngeen seen rapport sur les 94 milliards ñoom ay mbëri ñu ngi ak ñoom seen mag ñu tool noonu moo ñëw taxaw di wax lu dul dëgg lu ne fan te nee nañu ay député lañu teguñu ci sax deux semaines waa OFNAC génne rapport ne leen li ngeen wax yëpp dara amu ci daal di réclamer des poursuites judiciaires contre ñi ma tuddoon ñëpp boobu ba léegi dégg gis nga ne dañoo suulu kenn ñemeetul wax gàccee ni bu gare waaye du yem foofu parce que c'est des escrocs et des blanchisseurs d'escroquerie Deuxième fois, ce suba nous ñu yooxu dëkk bi yëpp mais man maa wax je l'assume parce que mag mun a taxaw gis càcc gu leer nañ nga bind ne càcc amul y yow sa bopp sàcc nga kon bu kenn yaakaar gis nga sénégalais li ma bëgg mu leer seen moi, tant que Macky Sall sera à la présidence de la République transparence du sera sa am ci dafa lo xamné du combat Ousmane Sonko pris isolé man dama gëm ni peuple Sénégal fi mu toll ni mo meunatul nangu te limay may dégg li gis partout mag ñi ndaw ñi goor ñi jigéen ni le discours est le même laa le peuple te xam ni mom Macky Sall su togué pare renseignements généraux jox ko ay bulletins xamna na lu peuple bi xalaat est-ce que fi ci salle bi fi ñi fi nek muy journaliste muy militant muy kenen est-ce que amna kenn ku mëna nangu tay ni Macky Sall dafa wara déposer troisième candidature peuple bi ci bopam moko nangul donc c'est un combat du peuple conseil constitutionnel ak sommes seen xam ce pays là dafa de justice justice peut-être justice des voleurs de poulet Amna. ak yu demee noonu soo tribunaux yaa ngi dox mooy tribunaux des gens ordinaires mais dès qu'on parle de l'État la justice euh, euh, disparaît Cette justice c'est état de droit moi, un système où l'État est soumis au droit donc puis soo des Macky voilà wala nga tudd rek justice amatul cour constitutionnelle yooyu waxoon naa ko fii a à jamono présidentielle réew mu ci Afrique cour constitutionnelle yi bokk nañ ci ci ñi ko taal. te responsabilité la moo Mali bi problème bi amé. li ñu réclame a réclamé ñoom c'était dissolution cour constitutionnelle bi IBK jaaxle dafa dafa dàq dafa tas cour constitutionnelle teg ci assemblée nationale. kon ñun li ñu wax le moment venu ce sera le combat du peuple te man gëm naa ni lu raw 2012 dina fi am lu 2011 parce que le peuple ne peut pas accepter que Macky Sall ak limu mu ci réew mi yëpp ko constitution bi ko ko mu ñew taxaw dans day troisième mandat